ma ne. non erreur boobu ngeen defoon. wala mu erreur ci ñëw tu n'as pas compris. ce n'est pas de ma ma soeur je mooy baaxal nit réew mi am Amadou Ba fi dàq fee jàng ëppaloo fi kenn mais yàlla moo la ci mbaaxam baax réew mi bëgg ah, yow xam nga dañoo bëgg Ba c'est ça la vérité Sénégal dañoo bëgg Amadou Ba. Macky Sall xëy xëy tànn Amadou Ba ndax di ci di dafa laaj nit ñi Macky Sall du dictateur dafa wax ak ñëpp déglu ñëpp ñëpp kon ko defar ki ñu jàpp ne moo gën ci jataay bi mooy Amadou Ba mu def ko noonu la kilifay def ñoo bëgg Amadou Ba opposition bi sax dañ ko bëgg c'est ça la vérité bañ dem élection soriwul su naan diw ndax lii xew suba yàlla moo xam ma donc jaamu yàlla moo xam dara taal sëñ Tuubaa la li ma la wax mooy yow sax au fond de toi man xam naa ne bëgg nga amul ba sa xol. amul ay aimable. lu tax ma koy bañ. waaw non pour vous dire que yàlla moo def bëgg ko dafa yomb li ñu soxla ci réew dafa ne ci moom li réew mi soxla tey bu Sénégal amee chance amul da koy jiite. mais mais mais mais ma euh, Birima. ce que tamit euh, inquiet loo un peu. Mm. Euh, seen yenn responsable yi dañoo tàngagul tàngaguñu ci mbir mi daal. ça ne vous ça ne vous inquiète pas. ban responsable par exemple. non parti bi de manière de de manière. waaw di nga expliqué xam il faut nga nangu leen laa wax xam nga man damay la Amadou Ba amul 100 pour cent Macky Sall bi sax bu doon day def troisième trois mois troisième mandat doo am 100 pour cent 100 pour cent kenn mënu ko fay am maintenant yow boo doon lim léegi ñi ñi tàngagul sa baaram duñ jeex ci combien de centaines de personnes boo nekkoon temps yi sa fukki baaram duñ jeex c'est normal. maintenant balaa ñu nekk élection ñu ñëwaat bu ñëw c'est le problème neex militant neex responsable yi neex militant yi ko gën Amadou ah, ne doit pas chercher à plaire aux responsables de l'APR ou de Benno non non il doit chercher à plaire aux Sénégalais gis nga barki dem Ndiaye bi ñu génnee ci noor bi noor ñëpp topp ko mais c'est ça la vérité nit ñi bëgg nañu Amadou Ba léegi nag di des nag ba élection nag sëñ bi kenn xamagul luy xew dañuy ñaan yàlla suñu mbër gañe mais man gën naa ne bu ñu demee élection bu mu mën jotee mu tàq na ko ñoom te dañ ci toogaat ce que est-ce que waru leen yéen yi nga xam ne dangeen ànd ak Amadou Ba waru leen am un discours pacificateur. parce que comme comme ni ma la ko waxee soxla ngeen Linguère soxla ngeen Kolda soxla ngeen. le euh, l' électorat bi Mame Boye Diao mën a drainer soxla ngeen l' électorat bi Aly Ngouille euh, mën a drainer même yeneen candidature yi nga xam ne. dañu leen dañu leen di fekk euh, le le maire de Sandiara le DG Ba moom mooy candidat moom mu am pour wax ak ñooñu man dama nekk militant bokk ci mouvance am lu xew ma fekke ko d'accord ma ci ma koy wax man la engagé dama ne man mënu ma nangu nga nekk li ma d'accord ak ñooñu leer la. man dañ laa leen laa d'accord ak ñoom mooy ba ba ñu xamee ne ba ñu xamee ni su Macky Sall tànn dañuy bañ dañoo a bañ dès le te amoon nañ ci droit nañ ci droit moo nañ ni Macky Sall écoutez man àndal yow laa joxoon sama kaddu yow kat nee nga dématoo man dem naa da wutali sama lu am jël ku leen xas da ngeen tooñ boobaa mais yéen hypocrisie la nga toog fu ñu tànn la kenn tànn la nga dem yàqi non loolu baaxul bu fekkoon da ko wax dès le départ avant jeu nga ni man kat Macky Sall man ko yow laa doon àndal yaa ngi sama kii bi ànd mais dama la koy nangul dama la koy nangul vraiment dama la koy nangul mais léegi nag bi ñu lay consulter ba eggal tànn nañ diw nga ne ma candidat la ba loolu moom même boo ñëwaatee rafetul maintenant nag la ñuy wax ba àndaat ba ñoom ñu àndaat kay candidat ba na ma ca. mais buñ doon moom problème am Amadou Ba la bu ne xëy na bu nekkoon ñeneen. du du na fàttaliku ne na fàttaliku ne problème Amadou Amadou Ba nee na nee na nee na moo ko ëpp diplôme moo ko dàq jàng moo nekkoon patron donc moom mënul nangu ñu tànn tànn Amadou Ba moo nekkoon patron waaw tey Amadou Ba mooy patron tey Amadou Ba mooy patron Amadou mooy président Sénégal yilif na ko démb yilif na ko tey te bu ko fekkee nangu woon na ko loolu du ngor fii loo fi lifin wul Macky Sall signature Macky Sall si kenn maa dàq jàng eh, Amadou Ba inspecteur général des des impôts domaines nekk jaar fi mu jaar yëpp nga tax naa ko maa ko waxee dafa sax loolu loolu bu doon bu ko dàq jàng jiite réew Macky Sall du jiite réew koy bi ni mu ngi loolu noonu la ñuy bu doon ay Macky Sall ñu ko jàngal ñu ngi ci te bu la yilif loolu la yàlla dogal xam nga kooku xam nga war naa ne mënul jiite réew mi wax yooyu rek boo ko waxee war na nga ni kii mënul warul jiite Sénégal maa dàq jàng kii. xalaat nga ne Amadou bu ko tànn woon tànn keneen dina nangu. Amadou Ba. Hmm. mais bien sûr tax nangu. da nga sa dégg Amadou Ba yow tànn ñu ko fii maire Dakar ñëpp di xaar mu nuy ñu tànn kenn dafa lool kay loolu daa musul am sànq ba dox ñaata la war a tànn am da jëluñu Amadou dàq ko bu kër mu toog pendant deux ans. nga woo ko fii bu toog ne man tey laa gën a ànd ak Macky Sall ci ginnaaw du fii la woon noonu ba mu pare ñu doon këram doon tëdd nelaw loolu mooy loyauté am na am na fi de li lépp ba ñuy saali dal na Amadou Ba daal saali tur na ko fal nañ leen nañ leen folli Amadou jox nañ leen bàyyi Amadou Ba mu topp ci ginnaaw Macky Sall rek. waaye ah yàlla.